yéen moom da ngeen a war a noppi da ngeen a ruus da ngeen a war a noppi noppi leen da ngeen a ruus waaw xaadim kan da ngeen a ruus waaye man bu dee maay Macky Sall doo leen am stade dooleen am marché mbàkke mbàkke bu dëkk Touba ñëw di déposer visa passeport diplomatique na ko bañ bu ko may ku dëkk tuuba nañ yokk autoroute à bi yokk ko ba mu cher ba ngeen xam ne yéen dañ a war toroxal ndax mérité woo leen dara Tiwaawan gi ngeen doon xeex sax wotal nañ Idrissa Seck xam ni ñoom nekkuñu ci dynamique ay murit ak tijaan da ngeen a war a yeewu maa xamoo leen lu dul tëli bu bees new ga ak der ya doo leen mën a yeewu ku ne mën na leen a manipuler Tiwaawan bi ngeen doon xeexal war na leen ñoom duñ seen moroom dañoo am esprit de dépassement xam ni vote du tarixa da ngeen a rus may leen ñu jàmm ngeen naan sàcc ku fi génn ñu noq la dañ lay ñuus ASC Ocass du dem ndax da iñaan da a bon man bokkatuma ci yéen da ngeen a soxor